dem ndaysaan ak Jackson arbitre bi ngi leen wax li règlement bi nangul li mu bañ ndaysaan bis bi ngeen doon xaar yegsi na dox ci diggante Jackson Ahmed Dem mbokk yi arbitre baa ngi wax ak ñoom ñaar Jackson jóge Géejawaay nekk doomu Waalo Ahmed Dem sifflé na mbokk yi dimanche 16 mars 2022 arène nationale Diamond production ndeysaan Ahmed Deme moo la woon ginnaaw Jackson moo la woon ñoom ñaar xale yi ñu ngi bëre wala ñu ngi lewaatoo daw na jëli ko daw na Jackson xeex nañ daw seen jëli na ko daan na ko daan na ko Ahmed Jackson daan na eh Jackson daan na Jackson daan na daan na ko gaaw Jackson eh Adama Kaay ndeysaan Jackson Lirou Diane kottu na ko Lirou Diane kottu alhamdulilah nga leen mais sant yàlla bu baax yàlla lépp yomb yàlla nañu ko yombalal mais sant bu baax ba nga jàpp ni jël bi daa yomb ni nga bëre non yombul ku yàlla ku yàlla fi bu fekk saa man ma ko yàlla am sutura tey may ma ndam si kawam. arbitre dañ na bëre rek ñu yaakaaroon xeex dina la bëre mu daw mu daw xeex bi. bu mais maa ngi sant yàlla bu baax. yàlla moo mënal lii nag. maa ngi koy sant bu baax. daan nga am alhamdulilah waaw yéen xam ma jëm. déedéet xamuñu ko yow yaa xamat den rek. sama sama gaal sama siis caaro laa ko teg caaro laa bàyyi a ma joon kese rek ak morom xale gi waay baa ngi nii ci ci waay man damay taxaw parce que seen doomu wolo wolo